asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaare mbooleem képp ko xam yaa ngi topp suñu site bi di 94 Walfu ah, Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa su nekk ci réew bi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen way leen di toppal 94 Walfu ah, Sénégal ahlan wa sahlan marhaba bik fii 94 Walfu Sénégal sama commentaire yi man sama commentaire yi waaw xam naa li wax bu baax a baax a baax maa ngi fi de maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax xam naa ne image bi ngeen nga gis waaw ci fan yi rek dinañ reprendre bu ko defee ngeen ñuy gis ci caméra bi voilà maa ngi leen di nuyu nag di leen siyaar bu baax a baax voilà ñu ñëwaat rek ci accident yi nga xam dafay am rek saa su nekk rek te chaque jour saa su nekk ñi nga xam ne seen euh, communication dafay dem fu sori bis bu yàlla sàkk ñu ngi koy voilà dénoncé mais nag euh, loo ci man voilà Euh, waaye xam naa ne solution dina am voilà solution dina am ndax xam nga euh, dafay mel ni euh, mbirum accident wala dara rek boo ciy wax dafay mel ni nit ñi dañuy xabtalu daal dafay mel ni nit ñi dañuy bañ ko tudd ko daal boo ko tuddee dafay mel ni dañ lay naqaral ci côté boobu noonu voilà dëgg la maanaam xam nga kaw tali moom boo ci dee jaar sa morom di ci jaar code de la route bi bu ngeen ko respecté maanaam sax bo accident amee mën naa bañ a euh, demee noonu voilà te tamit euh, bu ñu fàtte xam nga weñ gi nga yor moom euh, yorul bakkan voilà yow yaa yor bakkan sëf ay bakkan te xol bi nag mooy def lépp xol voilà bu fekkee da nekk koo xam ne ni maanaam sëfoor damay wax ni chaque jour war naa nekk ku lewet nekk koo xam ne ni wax dëgg yàlla ku yaatu ab xol lay doon parce que loolu dina ko dimbale ci baree baree baree bare dina tax Euh, lu baree baree baree baree bare euh, yàlla dina ko ci dimbali ndax boo xoolee sax xol bu yaatoo rek euh, daanaka mën naa ne rek yu baree baree bare yow dootoo ci doo ci tombee suñu borom dala ciy dimbali loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax safoor si mais am na ci ñoo xam ne seen xol ngeen baal ma dafa xat voilà te jàpp na ni maanaam noonu seen xol xate buñ jaaree ci tali bi ñoom kot képp ñoo ci war di jaar yu baree baree bari duñ ko moytandiku wala nga xam ni daanaka euh, xol bu xat daal mën na laa indil loo xam ne nii euh, daanaka maari day taali moo tax safoor si nañuy yaatal bu baax a baax a baax seen xol yi te xam ni xol yi lépp voilà ndax euh, oto bi nga yor sëf ci ay nit chaque jour war ngay bàyyi xel bu baax a baax xam ni man maa ngi ci kaw tali tey téye nag baar yi dee leen téye seen baar yi di bàyyi di wuy téléphone di dawal di wuy ay téléphone di jël di dawal di jël seen tànk di aj yooyu yëpp ay jayeele indi te dañoo wax xam nga sog bi nekk na sog boo xam ne sog bu metti la voilà te daanaka bu yàggu dong lañ ci doon wax voilà léegi nag euh, gouvernement bi moom jël nañ ci ay matukaay koo gis euh, El Malick Ndiaye ni muy doxalee ak équipe am da ngay xam ne ñii moom des na ci kanam tuuti am na ñoo xam ne moom euh, dootuñu yor permis di dawal ay longue voyage voilà parce que loi bi daf koy interdit te danañ toll foo xam ne bu boobaa dootuñu ci mën a dara voilà mbir mi moom euh, étape par étape la voilà lii yëpp c'est parce que ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk réew mi parce que da ngay dem ci réew yoo xam ne ay réewu développement lañ wax nañ ko waxati ko boo gisee accident bala boo ko gisatee kenn du xam kañ la parce que xam nañ ko